ñëw soxna ma. du ma ñëw ah du ma saa ñëw da ngay sentir 24 mi ngi ñëw parce que du dee xool du dee du dee ñun ba ñuy ko quoi temps jamono ci ginnaaw ba ñuy xale du vingt ma saa ñëw ñun dañuy jaral nekk Dakar gii di jaay du amee du mu guddi guddi guddi dañuy fanaani Jurbel quoi comprendre nga dañuy fanaani Jurbel duñ demee kenn ku ne da teg duñ tegee. ñu def suñuy def def suñuy def suñuy suñuy boisson def suñuy suñuy beñe def suñuy crevette ay xale la ñoon ku ne day indi cinq cent cinq cent mille franc mille franc ñu dem jëndi farine jëndi nen wutey euh, lu bari jox ñu ñu fete mag dafa ay gato jënd ay gloria boota gloria mu ngi doon jar fukk ak euh, juróom-ñett su nga ko jëndee ba pare dafay sœur blanc nag yuuxu ba bërset Sena misi dañ leen daan jëkkante bu ngeen am Sena misik après ngeen dugg si koñ bi xool gàlle boo xamante bi nii dañ koo miiree noonu collecturé ko moom def benn bunt nga gis borom kër gi nga àbb ko kër gi wala bu ko mënut a abal mu luyee la après ngeen daal di def seen base def rideau ci bi jël seni i taxi de entrée 500 wala entrée 300 wala entrée yaa ma gëna xam après ngeen dugg foofu ngeen koy defee foofu ngeen ni foofu la ñuy di tëgg musique ba fajar fajaree kaa ñu tasaaroo kenn ku nekk jaar sa yoonu kër. man mosuma xam 24 ba fi mu ne nii tey tey bésu dafa naan tey jii léegi la ko ñëwaay dafa naan la première man xaw 24 sama njabootam wóor na sëñ Bamba xaw ma doom jo xam 24. xamuñu 24 de xamuñu ko de màggal Tuubaa la ñu xam nekk dugg ci saxaar gi booba la di jigu jak jigu jak. jugu jag ba Touba nu wàcc nag suñu xool mel ni galaas waaye 24 tey jii laa ko xam ñeent bi ngeen ko waxee sax mais man mosul def attention. feetu 24 ak ak ak 31 ak korite ak tabaski ni mu daan riiree ci dakaar léegi xewi na. nit ñi talatuñ ko quoi jamono bi dafa changé léegi ba daanaka nit ñi léegi foo leen fekk léegi dañuy dóor waar rek du 24 ak tabaski lañ yemale daanaka du ñëwatee daanaka seen activités daanaka moo tax dootuñu ko tal léegi day dox. xam nga comme jamonoy di dox moom lu na ñoo koy doxal waaye ñun mag ñi ma ah, man de xaw ma ko woon man de bàyyi sol xaw woon 24 maa ko Tuuba rek bu maagee lekk sama cere ju neex forox tool saf-saf mu dàqal ma soos <laughs>